asalaamaaleykum mbokk yi topp 24actu.com dellusi war nañ suñu émission taaru Sénégal taaru Sénégal nag ñu ci waxtaane ay thèmes yu ama am solo di ci waxtaane xam ngeen ne Sénégal yàgg naa taaru ñu ci indi thèmes yu ama am solo thème bi nag ñu daal di taanu tey ji war war gi nga xam si ne moo lëmbee ci jamono ji man fee yàq lu bëree bëri ndax buñ nee war war gi mi ngi ci biir kër yi war gi mi ngi ci li nga xam ne moo di couple yi war gi tamit mi ngi ci béréb bi liggéeyukaay yi war gi ba ci euh, WhatsApp yi sax mi ngi ci loolu lépp nag dinañ ci gën a waxtaane tey ji nag ñu di dalal dalal suñu kan muy Tata Bousso euh, Tata Bousso ginnaaw bi ñu la nuyoo ba pare ñu bàyyi la nga nuyoo ñu lay seetaan. waaw maa ngi lay sant sama doom bu jigéen maa ngi lay nuyu bu baax tubaarkàlla yéen fii ngeen am ngeen fi place bi ma sant Serigne Touba maa ngi sant sama yaa baax di sant sama borom kër. bu baax kontaan naa si dalal bi ngeen ma dalal fii. waaw jërëjëf Tambouzo ngeen dégg ko noonu Tambouzo tey ji waxoon nañ la ko thème war la war nag buñ ko waxee gis nga ko ni mu lëmbee ci jamono ji. Mm-hmm. tasaaroo nekk fi loo xam seen tamit dafi yàq lu bëree bëri tey ji ñu tànn thème boobu ngir bëgg ci waxtaan boo ñu doon ci wax ci war ji xam xew ci jamono ji lan nga ñuy wax. Ah, tubaarkàlla mm-hmm. xam ne ci Sénégal tubaarkàlla mooy lëmbee ci àdduna bépp mm-hmm. ndax dangay am sa xarit. nga wax moom duggal si moom ci néeg wax ak moom su paree wax xaritam waxaat xaritam te loola ci boppam war la ndax bi mu lay woo boobu dalaa wóolu woon pour ne wax la secret wala secret boobu mu la wax war nga koo bu baax a xam ne waroo koo génnee tubaar génne la macha allah. waa jërëjëf tata gi ba tey woor gi dañ ciy dikkaat tax da ngay ànd ak nit tamit. Mhm. Ah, ci li nga xam ne moo de whatsapp yi xew léegi whatsapp da nga ciy gis nit wax ceeg nit ba àggal buñ tënk seen wax yow nga denc sa wax génnee audio yi di ko transférer est-ce que loolu ba tey bokkul ci woor. ah ñun géwél yi daf fi ne ñemeetu ñoo yor sax mais téléphone whatsapp boo déggatee fee da ngay li ndaxte da wax. nit di waxtaan ni sa fekk moom ma ngi fa wasabam soo paree te lool moom boo paree dootoo ko mën a miim ne wax wasab daal moom mi ngi toj réew mi kenn amatu sa xarit na danga am sa xarit pour maam teg ko ne kii mooy sama nit wax moom ci wasab bu paree wax boobu mu fab ko tasaare ko te lool xam nga loolu jékkul rafetul dëgg yàlla jamono ji daal léegi metti na torop xarit daal foog naa xarit bu sincère amatul. Mm-hmm. Oh, waaw li tax waa xarit yooyu sax ci laa dikkee ba tey ndax nee nañ dangay am sa xarit. Mm-hmm. def ko su muy sa xaritu bopp nga daal di jël sa lépp di ko wax ba tey ji sa jëkkër sax danga ko koy daal di yëkkati présenté présenté ko boo ko présenté ndax bëgg tey ji moom def ko ne sa xarit la. Mm-hmm. moom ndekk dama ngay xool ci moom ak nobel nobel googu muy xool ci moom tey ji loolu est-ce que bokkut ci ba tey ci xeetu wor yi. bokk na si ndaxte dangay am sa xarit pour maan na ko kii man kii sama jëkkër la di wax ak moom yu yu bari. defal na ma naam defal na fekk yow sa xarit boobu mi ngi la teg bët pour bëgg laa ñee ci loolu mu la def mu ngi sa jëkkër mu ngi doxoo ak moom si ngoro bu sew di jaar ak moom ci suuf di ngoro bu ko defee mu ne ko soo génne ñu ne ko bokku leen day bokku leen baay mën ngaa sëy ak moom ko xarit boobu xam nga xarit boobu sincèreul xarit dëgg-dëgg soo amee naqar yaa ngi moom soo amee bànneex yaa ngi moom lu mu nekk yaa ngi Mm-hmm. man gis na ko ñun géwéli tubaarkàlla dañuy dox mm-hmm. da nga gis koo xam ne mm-hmm. day nekk xaritam ndekete mi ngi ngoroog moom ba mu dem mu sëyi ci xam nga loolu kooku war na ko du xaritam loolu ci àdduna bi léegi bari na fi torop waaw léegi xarit ko est-ce que kon xarit yu mel noonu yi nga lim sànk est-ce que bareeti na ah xarit yu bari de léegi man de samay xarit moom la man xarit yu baax laa am ndax ñun yi nag bu ñu nee nan boo masaa dem xare sa sa géwél nga yóbbu boo masaa dem tubaar tubaarkàlla di dem ki sa xew sa géwél nga yóbbu mm-hmm. li naan kuy dem xare fàtt fa sa ngànnaay sa xare du neex mm-hmm. tubaarkàlla ñun géwali ñun mm-hmm. dañuy ànd ak xarit yoo xam ne nag duñ leen di wax dëgg xarit yoo xam ne nag su naree jaar yoon sax danaa leen nii la ñuy doxe loolu mooy xarit. man xarit yi ma yàlla jox yëpp a baax. Mhm. aw ma benn xarit bu bon. wax nga dëgg temps bu soo ba tey tamit ci woor gi comme ni ñu waxee lépp lépp ci xeeti woor yi. Mhm. da ngay gis euh, nit dañ ne woor kala koy def mooy kalay xam. wala xam dëggantaan moo la koy def. dëgg la ki la xamut mënu laa woor. Mhm. ki lay woor mooy koo xam seen da ngay waxtaanee moom sa biir di waxtaanee moom lu bari ba tey ji da ngay gis koo xam ne si ne sax da ko jàppee comme ni ma waxee rek sa xarit xarit boo xam seen da nga ko def sa lépp mu tegal la plan boo xam si ne yaa jaar fekk fekk ne moom lam laal ca suuf warang ca biir. dëgg la di nga am sax nga xam tey loolu bu la ca dugalee ba biir day am foo xam si ne point boo xam si ne dala say mën a képp. dëgg la pourcentage la defal ma nangam jox ma xaalis sangam loolu lépp ñu gis ko ci muy xeeti wor yoo xam si ne tax na nit ñi léegi sax yaakaar nañu sax waratuñoo mën a waxtaan looy gisee loolu. dëgg la da am sa xarit pour maanaam yow kii ne kii man sama xarit la. Mm-hmm. mais loo fanaanoo di nga ko ko xëy wax. Mm-hmm. loo loo loo xalaat sa xel rek di nga ko ko wax. Mm-hmm. fekk xarit boobee. moom dafa laa iñaane ci biir. mais soo solo mbubb mu rafet iñaane la ko soo defee lu rafet iñaane ko xam nga kooku du xarit te yaa ngi jàpp ne man kii mooy sama xarit gis nga xarit léegi amatul da ngay gis xarit boo xam ne yow leer na ne soo waxee moom boo génnee booy génn rek mu ne kii defi ak nangam xam nga kooku du xarit xarit dafa jafe torop mais dem na ba ci jëkkër ak jabar jëkkër ak jabar da ngay gis ne kii man sama jabar ji sama xarit la nga dem nu mu nekk nekk sa jëkkër ndakate am na lum la iñaane tuuti ndax yàlla yemalewul di nga sëy jëkkër ja iñaane la tuuti mm-hmm. wala jabar ja yow mii ngay xaw laa iñaane moom jabar jëkkër ji ah, kon jëkkër day iñaane waaw jëkkër day iñaane danga ah. gis koo xam ne yow mi leer na ne mm-hmm. sa jëkkër la waaye yow yaa ko li li ngay am yow jabar ji mm-hmm. mais jëkkër ja du ko am su ko defee da lay iñaane di la koñe ci yu bari soxna si nag jabar soxna nag moom mm. ci bu la naree koñe dëgg-dëgg mm. day yox loo def mu xëpp ca suuf. indi la histoire loolu lépp ci xeetu iñaan la xam nga iñaan li naan iñaan dafa tardé xol bu rafet dafa yew ca fajar da gis koo xam ne leer na ne yow kii dafa iñaan. iñaane jëkkëram bëggul ma avancé benn yoon su soñoon jëkkëram loolu lay dund iñaan daal ku ko suñu borom defal moom moom daal est ce que est ce que kon maanaam daal iñaan gi daal da ngaa yaakaar ne yow ni ma ni nga waxee surtout jigéen ñi góor ñee ci gën a mën a koñe jigéen ñi wala jigéen ñi ci gën a mën a mel ñëpp la da nga gis koo xam ne moom sens la rek mbir mi da nga gis koo xam ne kii dafa baax. kii dafa yéene jëkkëram jàmm. da gis koo xam ne kii dafa yéene jabaram jàmm lépp daal affaire beebul batiku rek. kon li nga. waaw de boo ci iñaan gi foofu kon fi nga duggee ci biir sëy bi da ngay gis ñoo xam ne seen sax sëyantegun sëyandu def ñu dañoo tolloon ci ngoro wu rek nga gis ci koo xam seen day ànd ak nit ba mujj yàgg rek gis koo xam ne ëppale na ko wala tey ji ma ngay xool ne ah liikat kat euh, ànd nag moom ba mën ko mbëggeel goo xam ne yaakaar nañu war nañoo mën a mu jekki-jekki war ko loolu tamit ba tey ci. ah waaw loolu day am toujours bu ne moom da gis koo xam ne toujours gune ne ay ay at la koy ngoro. ba ne kii moom moom lañ koy may mu xëy gis ko am alal mu bàyyi ko fa dem ci keneen wax ko mu ne man ku ma garab bu la sutul du la may kër xam nga loolu toujours gone da nga koy gis noonu mu amee ci jigéen ñi noonu la amee ci góor ñi da nga gis góor ñoo xam ne fii dañuy ngoroog nit mu ko yaakaar pour takk jigéen ja toog bëgg mu takk ko mu dem samaat keneen sëy ko ne sëy sens la mm-hmm. tubaarkal loolu lépp a ci am. ba ci bérébu liggéeyukaay tamit dañ ko ciy gis. Euh, war gi war gi dafa waaw loolu dafa am mais da ngay nekk ak bu yow xam ne yow yaa ko ëpp chance fa muy liggéey loolee ci loole ba tey ci wor la nga fexe ba yow ba yàqal ko boo ko yàqal doo ko yàqal leen ci làmmiñ nga ko yàqale wala di ko waxal lu ñaaw soo ko waxalee lu ñaaw ñëpp di ko xool si dara du si dëgg. Ah, fekk rek kon ba ci iñaan gi dafa topp ci di sosal nit ki loo xam si ne nekkul ca moom. waaw iñaane ko. te iñaan dafa dafa bari façon de ndax di nga romb nit rek solu rek. di dem mu ne kii teg ci yow lu ñaaw te fekk yow fam fa nga fam la fam la fooge sax du foofu yow foofa nga jëm fam xalaate sax xalaate woo fa iñaan nag moom bind la rek dafa am ñoo xam ne moom macha allah seen xol a rafet ñëpp leen yéene jàmm loolu day am ñoo xam ne ñoo xam ne boo bokkoon na ñoom tey di liggéey boo doxoon mètre sax ñu iñaane la ko loolu nag dafa am mais am na fépp am na ba ci ñun ñi géwal yi sax dangay dem taxaw nit iñaane la loolu li moom dafa war réew mi. ba ci biir kër gi sax li tax ñu ne iñaan dafa am ci biir kër yi ne nañ dangay ànd ak nit dangay bokk ak nit ki même kër yàlla bind wërsëg te tolloo la wut ndekete moom ma nga lay ree waaye bëggu la iñaan mi ngi muy ay pexe yoo xam si ne saa su ne mi ngi la koy lal muy xeeti iñaan iñaan ci kër gi ak ñu leen mën a kii est-ce que mënuñu yoo yàqal lu bari. waaw dangay dëkk ak si kër gi fekk yow yaa ngi koy yéene jàmm ngi la yéene maanaam di la yéene iñaan te fekk boobu li naan bañ bañ débat direte ko lal fekk yow jàmm rek nga ko yéene yow mu ngi lay yéene soxor mhm. te nag àdduna du noonu mhm. suñ borom moom ku bind mhm. ñii dañuy dem ku ne fii la la yamale fii mun la kee da ngay dox lool moom boo ko xasee def rek ci àdduna sonn nga def man loolu laa yaakaar. Mhm. waaw loolu lépp bokk ci iñaan gi daanaka mooy xeetu wor gi ndax lépp ci wor la ñuy waxtaanee. ndax mhm. nit ki dañ ne euh, iñaan xam naa mooy dem ba indi la loo bëgg a war ci nit war ko ndax lu sa xol rek moo moo mooy indi wor te tey jii wor googu ñuy waxtaanee dafa dugg ci ci si xeetu iñaan dañ ne dafa mel ne xam naa ci lay jaar ndax tey jii bu fekkee ne yow yaa ngi ànd ak euh, sa borom kër ngeen ànd nga gis loo xam si ne xam na xam nga ama tey ñoo xam si ne ci biir sëy bi la ñu nekk dafa seen xool jël seen euh, jëkkër jël seen bëtu borom kër ndax am na ñoo xam si ne tasal ma takk la mi nga am ci biir kër yi da xam te loolu lépp dafa bokk ci xeeti wor fekkee ne tey ji yaa ngi tendance sa jëkkër di ko tappaas pour tey ji mën a xool loolu xam yaa ngi dund loolu fi mu toll ci xeeti wor est-ce que loolu bokkul ci xeeti wor yi ah loolu la moom xeetu war la bu baax ndax dangay gis koo xam ne tey jii mu ne ko tasal ma takk la moonte bis bu ko ne tasal ma takk la bu tasee du ko takk pour maam da koo iñaane rek sa sëyam su ki ko ne tasal ma takk la bu tasee du ko takk. danaan kii est-ce que na nga ko war a tege fii mais du ko takk sax danaan su ma ko takkee boo léegi day demaat ci keneen mu ne ko tasal ma takk la mhm. lool la. ah loolu loolu loolu nga yaakaar ne fi mu toll nii moo waral kon daal tànn bu soo ñu daal di bëgg tey ñi doon waxtaanee li nga xam si ne moo di war gi am ci biir kër yi naka la nga yaakaar ne moom lañ war a mën a def ngir loolu mën a saafarawu ah man de yaakaar naa ndax ñëpp rek fépp xol yi ñu tàppe ko mu nekk benn laa laaj mën soon mbay di wax ñu yéenante jàmm ku ne yéene sa bopp jàmm loolu daal laa foog ne bu ñu ko defee ñun ñëpp dañ am jàmm ku ne yéene sa bopp jàmm ku am sa jëkkër nga jàpp ko bu baax bañ koo wor kii am jabaram bañ koo wor moom jàpp ko baax am sa xarit nga jàpp ko baax te bu ko wor sa xarit lam la wax na nga ko ko nëbbal sa biir loolu mooy nit waaye nit waru laax sekkereem ba pare ngul bitiku waat di ko génne man de duma war sama xarit ndax nga dégg temps sa ñu daal waxoon tey li nga xam si ne moo di war ñu daal di gis warin wi ak ñaaw gi nga xam si ne moom lañ ko waxtaan ak sa moromu góor nga waxtaan ak moom ba yeew say mu denc ay waxam génnee say wax waxtaane ko ci biir génne ko tasaare ko fu ne fekk na moom amaana loolee ngeen dul wax yéen a ko àndoon yéen nga yaakaar a waxtaan moom génne say wax loolu lépp bokk ci li nga xam si ne moo def na bu baax fi yàlla fi yàlla sëñ Tuubaa def mm. mel ni Aliou Ami Guèye la moom alaaj Sani Guèye sedd kooku sama xarit la kooku duma war duma war maa ngi kontaan ci moom bu baax maa ngi nuyu Aïda Khoule sama xarit la maa ngi ñuy Soda Fall tubaarkàlla nuyu soxna May ak maam Diarra sàmm ñun samay xarit lan tubaarkàlla duñ ma wor ndax olof Ndiaye nag nee na wax ma sa xarit nag ñoo ñoom la li naan lépp dama koy doxañ ndax man ñi ma ci xarit yëpp mënuma koo wax damay sant ñëpp kontaan naa maa ngi sant suñu waa koñ kontaan naa sama xol sedd na kontaan naa. merci beaucoup. waaw kay waaw jërëjëf Tane Bousso tey jii moom lañ dalaloon muy Tane Bousso émission euh, taal Sénégal taal Sénégal la nit leen ko waxee dañ ciy indi ay thèmes yu am am solo di ci waxtaanee lépp loo xam ne si ne dafay taaral Sénégal tey jii ñu daal di indi woon wor buñ wor da ngay gis euh, ñi nga xam si ne ñoo di ay xarit yoo xam ne da ngay xool ay xarit yu sincère lañ fekk na tamit tey jii loolu la ñuy ànd la ñuy wane sincère wut ndax am na ku ci war morom bi da ngay gis tamit ci bérébu liggéeyukaay yi tamit ci ñi nga xam si ne tamit dañuy ànd nga yaakaar ne ñi seenu ànd tamit war na mën a neex fekk na am na ko xam ne ma ngay war ca ma ngay war gis tamit ay wax yoo xam si ne tamit dangay day senn ñu naan fan la war a senn fekk na dafa am kuy nekk ci seen biir di wax loo xam si ne mooy xeeti wor loolu la lépp nag fekk bu nekk ci xeeti wor ndax nit ki def naa ne ki nga xam si ne mooy sa nawle euh, war fexe mu lay gën jikko ndax dañ ne bul sa sa nawle di la gën jikko te tey ji nit ngay wax ak moom ba pare di am yoo xam si ne yaa ngi koy génne muy ci yow loolu boo ko xoolee ki nga xam si moom nga àndal moo la gën jikko ndax fekk na amaana yéen a bokkoon di waxtaan bu dee ci whatsapp bi yéen a àndoon di waxtaan amaana mooy génnewul say wax yow nga jël say audio bel ko ne jël ay audio di ko tasaare loolu lépp ci nekk ci xeeti war yoo xam si ne mën nañoo yàqal ci suñu àdduna ba dañu war a xoolaat nag naka la ñuy defarewaat jikko yi ndax yooyu jikko ci wor dara rafetul ci ba ci li nga xam ne moo di couple yi sax da ngay gis jëkkër di wor jigéen tamit di wor li nga xam seen ne moo di jëkkëram ba ci biir kër gi tamit xeetu waroon tey ñaaw yooyu yëpp ñu doon ko waxtaane tey jii ñu daal di jox dig daje te xam di tàggu di ziar ñi nga xam se ne ñoo di suñu cameraman yi xam ñoo ci jàppoon ak xariñaar yi nga xam seen tamit mooy monté jataay bi di leen jox dig daje ci beneen émission Taaru Sénégal jërë ngeen